acte du jour lu ciy gën a fës bokk na si rek mbirum Khady Diouf mu ñu fàtt bés yi ñu génn si quartier Medina Fall bu Thiès waajuram bu góor nag di wuyoo si turu ba Mor Diouf daal dina si addu moom nag dafa jóg rek ngir leeral xibaar yu si doon circuler rek yu yuñ si mujjee jot di firnde ne Khady Diouf wonul woon lot rek ba ñu koy fàtt loolee rek waajuram bu góor daal dina koy leeral lam si xam ne yëpp daañu leen ko jottali si bu ñuy yaatal lay doon lu doy waar jigéen bi wuyoo si turu ba Khady Diop ay atam si eh, fukk ak juróom kepp rek moo dal di xaru gannaa ba mu jotee ak waajuram bu jigéen ba mu ko si wax rek si eh, kaddu boo xam ne nii rek neexu ko benn yoon ba tax mu dal di xaru danañ leen ko gën a yaatalal si eh, bakkanu doomu adama yi ñuy wéyee di faat ba tey dinañ si wax rek bu am tey si alxames gi fukki fan nag juróom-ñeent si weeru mars atum 2020 bi ñu nekk la ñu jot nag xibaar wi si suba si foo loolee bu góor boobee nag dañ ko ren di fakket dinañ leen jottali détails yu ñu si jot am danañu wax tamit si coronavirus bi daal dinañuy am rek yeneen juróomi yu bees jëwriñ yi bu ñu dënk wàllum wér gu yaram bi moo ko xamle ni kii démb si àllarba gi ana juróom yooyu fanaan la ñu jëlee boobule feebar daañu leen ko xamal ba tey si coronavirus bi ba tax rek eh, xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour moom nag daal dinay xamle démb si àllarba gi jàmm ko fukki fan nekk juróom-ñett si weeru mars bi ñu nekk ni dina ñuy rek dakkal julli juma yi ñuy amal sak ajjuma moom nag loolu yëpp mu xamal lu xamle nag kii di Iran Ndaw ak imaamu grande mosquée bu Dakaru d'accord yuñ ci benn yoon gannaaw rek bañ si yëkkatee ay kaddu ñoom it la ñu si wax rek danañu leen ko xamal si kanam tuuti lay doon danañu wax tamit ak fukki sénégalais ak juróom-ñeent yoo nga xam ne ni bokk na si ñetti soxna yu jógee rek bëgg a dawal bokkatu si seen réew mii di Sénégal waaye nag dañu leen téye rek ca Mauritanie ñoom ñoo ñëw di fay dund ay jafe-jafe yu tar lool ba tax rek ñuy woote wëllu nguuru ba Sénégal ngir ñu ñëw jàppale leen foofee ndaxte rek eh, am na sax ñoo xam ne nii ña bokk si ñoom dañoo feebar si ñoom ñoo ñëwee eh, bu loolu yëpp yembee daana si toftal rek mbirum suñu international sénégalais bi di Sadio Mané xam ne rek eh, gullee te muy wax ay relation a fës bu gannaaw bàkk bi ñu yaatal ko aywa bakk ba jib ñu leen di nuyu yéen ñu ñuy teewlu saa su ne rek ci Dakar Buzz ca diwaanu Sigicoor laa koy doore ab xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom-benn la ñu fekk rek mu ñàkk bakkanam si quartier bu Lindiane altine fukki fan ak benn si weeru mars atub 2020 bi ñu nekk si ay booru 16h30 minutes bu ñu sukkandikoo nag si suuf si xale bu jigéen bi mu ngi disparaître woon rek ca weeru décembre atub 2019 ba la ñu génn ay waajuram nag ñoo ngi ko doon wërandi waaye gisuñu ko. ko woon benn yoon ba keroog rek altine la benn gaskatu teen bu ñëwoon rek gas ci ab teen fu soriwul dara seen kër daal di gis rek néewu xale bu jigéen boobu nga xam ne rek dafa nekkoon ci état de décomposition bu avancé lool ba sapeur pompier yi dañoo amoon sax ay jafe-jafe ngir génnee ko ci teen bañu ko gis certificat de genre de mort bi nag bu ñu sukkandikoo ci médecin chef adjoint district sanitaire bu Ziguinchor traumatisme boo xam ne ni rek xale bu jigéen boobee. su ma jógee si Ziguinchor damay dem ca diwaanu cees addu si mbirum Khady juuf ma ñu fa fàtt si bés yi ñu génn si quartier Médina Fall waajuram bu góor nag di wuyoo si turu bu Mor Diouf daal dina si yëkkati ay kàddu di leeral rek eh, xibaar yu ñu si mujjee joote di firndeel ni Khady Diouf eh, wannul woon loot ba ñu koy faat Mor juuf nag daal dina koy weddi ba mu seet ndax lay xamle na ni rek doomu ju jigéen jooju dafa woon noonu loot ba mbir mi di am si noonu muy xamle sax ni eh, rek dasee ànd ak gëm li yàlla laata muy leere ne xadi jàng na rek alxuraan ba sori si lool laata ndogal gii di koy dal Ah, ba tey rek si bakkanu doomu aadama yu ñuy wëyandi di faat nga xam ne jeexagu fi ba tey tey nag si alxemes gi yemoo ko fukki fan nekk juróom-ñeent si weeru mars atum 2020 bi ñu nekk la ñu xëy rek jot bile xibaar di ab waay bu ñu fekk rek ñu ren di ko fakket ca corniche ba si booru ambassade du Japon fu soriwul dara rek palais de justice ba police scientifique bi sapeur pompier ak rek sous préfet bu Dakar Plateau ñu ngi sa lieu ba rek ngir amal ay constat d'usage si fàttali weeru mars dernier ci même endroit bi fekkoon nañu fa benn soxna bu ñàkk bakkanam rek bu ay atam waroon toll si fanweer te tamit gisoon nañu fa ci atub 2014 ab néew bu xale bu jigéen boo tàmbale woon sax di yàqu foofee ca corniche ba yeneen i détail rek yu am si bile waay ñu fekk tey mu ñu ren di ko fa ca ba da ngeen ko am si kanam tuuti si Dakar Buzz ak suñu ndaw ya ñu fa teewal ma junju leen ko léegi si ndox li lu doy waar lu am ca Parcelles Assainies unité 5 xale bu jigéen jigéen bu wuyoo rek si turub Khady Diop ay atam toll si fukk ak juróom képp moo dal di euh, xaru bu ñu sukkandikoo nag si source yi moom Khady Diop daa jote rek ak waajuram bu jigéen am xam naa kàddu yoo xam ne nii rek waajuram bu jigéen wax na ko ko te métti mu te mu métti ko lool loolee rek moo waral mu yéeg ba quatrième daal di rek xaru loolu nag jur nakkar ak tiis bu rëy si seen quartier boobee di Parcelles Assainies unité cinq ba tey rek ngeen di teewlu actu di jour fii ci Dakar Buzz ñu àddu jëmale ci virus bu lëmbee àdduna bi te gane ci rek suñu réew mi di Sénégal si communiqué bu mu def nag démb moom njëwriñ bu ñu dënk wàllum wér gu yaram bi Abdoulaye Diouf Sarr daal dinay xam ne ni démb ci àllarba gi Institut Pasteur bu Ndakaaru daal dinay rek testé ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ci ñaar fukk ak juróom-ñaar yooyee nag juróomi ñoo si positif maanaam ñoo am coronavirus bi dañoo jógee ko biti réew dugg si si réew mi ñaar yi nag euh, ñañu déclaré positif fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak juróom-ñaar euh, si weeru mars ñoo rek wàll boobulee feebar euh, si noonu lu ñu mën a wëññi rek si ñu am coronavirus bi fii si suñu réew mi ñoo ngi toll si fanweer rek juróom benn ñaar ñi ñu faj leen ba ñu am tane mu des rek fanweer rek ñeent doomu adama yu amee coronavirus bi fii si Sénégal ñu leen di traité si noonu ba tey jëwriñ bu ñu dënk wàllum wérgu yaram bi di xamle ni sax euh, xel dal na rek si malade yooyee ñu téye ca Touba ak Ndakaaru laata mi xamle sax ni angaaru pèlerin ya nekk euh, ca aéroport Léopold Sédar daa ñu ko def ab site de mise en quarantaine si bépp doom aadama bu fi séjourné si euh, cinq jour yu weesu si sunu réew mi di Sénégal bam ca noppee nag lay fàttali askan wi ngir rek ñu bàyyi xel ndaje ya ñu leen tere nga xam ne bokk na si ay ngénte ay mariage dëj xew-xewu diine wala yeneen li ni mel si coronavirus bi lay desandeeg yéen baye bile yoon ak rek xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour moom nag daal di ne xamle démb si ay àllarba gi yem moo ko fukki fan ak juróom-ñett si weeru mars atub 2020 bi ñu nekk ni rek daal di nañuy dàkkal julli ji jumaa yu ñuy amal rek ajjuma bu yàlla sàkk si territoire national gi yëpp boobulee décision nag dara taxu ko jóg lu dul rek a a jël ay mesures ngir aar citoyens yi waaye itam jàppale état euh, si mesures yu mu jël ak tamit décision yu bàyyeekoo euh, si foyer religieux yu nekkee rek euh, yu bëri fii si réew mi mu préciser ko moom moomee di Serigne Babacar Sy Mansour laata rek muy woo juma yëpp ak fidèles yëpp ngir rek ñu respecter mesures de prévention yi waay itam lu si rek gouvernement bu Sénégal teg ba rek si boobule mbir ak waarekatu Zik FM bi di Iran Ndaw moom nag Iran àndul benn yoon si boobu lee mbir di julli juma ya ñuy fas yéene dakkal ci ajjuma yi comité ouléma bu Sénégal nag dañoo defoon ab communiqué démb ngir xam xamle julli ju juma ya ñu dàkkal ci ajjuma yi ngir éviter rek propagation gu coronavirus bi waaye nag eh, Iran Ndaw daa yaakaar ni waruñoo xalaat sax tëj lii di juma yi ndaxte rek bu ñu sukkandikoo ci moom eh, bërëbu jaamukaayu yàlla yooyee rek moo ñu war a feebar wi laata rek muy xamle sax ni eh, tëjuñu marché yi tëjuñu lii di garage yi ak yeneen eh, mbir kon ana lu waral rek ñu bëgg a tëj lii di juma yi mu xamle ko moom Iran Ndaw ma junju leen ko léegi si ndoxteel lii ba Iran Ndaw noppee nag imaamu grande bu Ndakaaru moo ko feelu gannaaw ba mu bañee dàkkal rek julli yi ñuy amal ajjuma moom nag Serigne Alioune Moussa dafa opposé wu rek si décision gu gu ëmb imaam yeeg ulema musulman yi di dakkal rek julli ba ajjuma yi ganna ba mu gisee nii rek julli juma ajjuma yi rek eh, précepte l'islam la moom imaamu grande mosquée bu ndakaaru ñu fàttali leen rek ni njiiti réew mi Macky Sall daa tere bépp manifestation publique ak yeneen yi ndaje ngir xeex eh, coronavirus bu gane si suñu réew mi di Sénégal fukki sénégalais ak juróom-ñeent nga xam ne bokk na si ñetti soxna ñoo jógee ko rek Espagne alxemes ba la ñu génn ngir ñëw fii si Sénégal ba ñu traversé nag Maroc euh, ba noppi la ñu leen téye seen convoi boobee ca diwaanu Mauritanie ci noonee la ñu woowee wàllu état bi ñoom moodu moodu yooyee ngir ñu dimbale leen génnee leen foofu ñu leen téye ndaxte dafa am rek ñu amee feebar ci seen biir bu ñu sukkandikoo sax ci enquête moodu moodu yooyee ñu ngi dund ay jafe-jafe yu tar nga xam bokk na si ñàkk bu ndox ak ñàkk bu kaaraange Mor Niang nag eh, mu yor kaddu ba fukki sénégalais ak juróom-ñeent yooyu daal dinay xam ne ni ñoo ngi jànkuwanteeg ay tolof tolof yu tar lool boobu ba tey te dara rek soppeeku si laata muy xamle sax ni ñu ngi échanger ak ambassadeuru sénégalais yi waaye dara rek eh, soppeekuwul si seen situation ñoom nag émigré yooyu dañoo jógee ko rek Espagne jaaree ko yoonu suuf si ngir bokkatu si seen réew mii di Sénégal ndax coronavirus bu tiital yitteel askan wi yëpp wakkaama laa jëm Jibril Diallo bokkul benn yoon ci émigré ya ñu te Mauritanie gannaaw ba mu yegsee eh, réewam ba rejoindre waa këram moom nag depuis ba mu ñibbisee fukki fan nag juróom si eh, weeru mars eh, bi ñu nekk ay dëkkandawam dañuy ngurum ngurumee rek di naan dafa coronavirus yooyu lee kàddu nag métti ko loolu moom Jibril jàlloo mu dévoilé sax identité am ca RFM dëkk foofee ca Wakam gannaaw ba ay doomam ak i soxnaam nekkatule à l'aise ndaxte rek euh, kaddu yi affecté na leen loolu ba génn sax di leen di diit euh, loolee tax sax ba Jibril Diallo daal di porter plainte rek dëkkandoowam yooyee euh, di naan dafa coronavirus ganna ba mu gisee ni dañu koy stigmatiser. ba tey si coronavirus bi fii si ndakaaru nga xam ne propagation gu Covid 19 bi si diggante ndakaaroo ak Touba doy na waar ndaxte rek ba ñu mënul mënuñoo weesu benn bés rek te xamle wuñu benn wa ilaa ay cas yu positif bu ñu sukkandikoo si média kenn si di juróomi nit ya jëwrin bu ñu dënk wàllum wér gu yaram bi xamle démb ni ñu rek positif ab agent wu benn société publique la siège bi nekk si quartier bu bëri nit lool loolee sax moo jaaxal jamono ji ñi di autorité yi bépp agent nag bu nekk si boobulee société danañ ko leen rekk confiné te autorité yi sax jël nañ seeni ba devant boobu boobulee mbir ba noppi ak euh, directeur général entreprise boobee moom nag directeur général ba sax euh, suñu naataango ya nekkee ca immédiat woo nañu ko téléphone waaye rek bëggula addu si boobule sujet daa bëgg rek bàyyee lépp jëwrin bu ñu dënk wàllum wér gu yaram bi Abdoulaye Diouf Sarr mu xool koy communiquer wala déet coronavirus bi daal dinay faat ab soxna ca Burkina Faso mu nekk nag e, seen kaawu dese bu njëkk bu bile feebar sabab si seen réew moomee e, soxna su mu faat nag ab diabétique la ay atam mu ngi tolloon rek si juróom benn fukk ak ñaar e, moom moomee sax moo nekkoon ñaareelu vice présidente assemblée nationale ba moom nag mi ngi ñàkk bakkanam si guddi ba mardi jàpp mercredi bu ñu sukkandikoo rek si coordonnateur national de l'épidémie Covid-19 ba aywa suñu international sénégalais bii di Sadio Mané la koy tëjee ak kii di Cheikhou Kouyaté gullet moom Sadio Mané di yàddu si relation wam ak Queen Biz si direct nag bou Cheikhou Kouyaté di amal Sadio defee rek ay révélation si vie privée di rek supposé relation amoureuse am ak woykat bi di Queen Biz si ab laaju benn flow nag euh, bu bëggoon a xam ba xam ndax Sadio dina takk kii di Queen Biz la international sénégalais bi tonto di xamle ni Queen Biz xaritam la bu weesoo loolu dara amul seen diggante ñoom ñaar ay xarit képp lañu mu xamle ko moom Sadio Mané laata muy takkine kii di Cheikhou Kouyaté